Euh, quittance bi euh, bële euh, fiche bi nga xam dañ ko war a numériser mu am amul numéro bi wut nañ fiche ba ba yóbbu def ci parrainage des élus mm. naka nga gisee candidature am boobu waaw mais candidature bi mooy jàll na ba pare mm-hmm. jàll na ba mooy jàll na amul dara dara ci àddina luy gàllankoor jàll bi bu dee ci yoon rek la ñuy wax ak droit loolu moom ñi am xam-xam boobu yëpp xam nañu ne Sonko lu koy téye moom amu fi xanaa lenn rek daal moom moo mën a am te yaakaar nañ ne xëy na duñ fa yegg mooy maa goo xam ne gu li ëwwali marra maanaam maa goo xam ne mosul am ci histoire mhm. te bu boobaa amuñu problème ak Sonko bu boobaa àddina bi lañ amal problème mhm. bu boobaa Afrique lañ amal problème bu boobaa population sénégalaise bi lañ amal problème yàgg naa ko wax dama ne combat bi boo jàppee ne sonk ngay xeexal dangay juum mhm. xeexoo ak sonk affaire bi affaire u réew la affaire bi affaire u bëgg-bëgg la gis nga population saa yu demee ba tànn ñi ëpp tànn mbir loolu la yàlla tànn su yeboore nga fekk si leen boo leen fekk siwul da ngay da da ngay sonn maa ngi koy wax keroog boo demee Tunisie si seen hymne national ki ko bind benn xaleel la boo xam ne vingt six ans la am bind hymne national bi génn àddina ci biir hymne national bi dafa am wax boo xam ne daf ko cee wax ci biir dafa wax ne ida chaabu yowman araada alxaya fa laa budda an yastajiba alqadar laa budda lil leyli an yanjali wala budda lil qaydi an yankasir xam nga loolu dëgg la maanaam peut-être mën nga taxaw ci benn côté mais boo xoolee histoire loolu la wane mooy peuple su demee ba décider. ne dina dund dund dignité. dund personnalité dund tedd nga. mën na mu ne bu peuple bi décider loolu yàlla da koy fekk si. mu ne jéng yi ñu leen jéng di leen jaay doole di leen not laa budda lil xëydi an yan kasir mooy chaîne yi ñu leen takk day dagg maanaam bu ngeen décider pour dagg jéng yi day dagg wala budda lil layli an yan jëli maanaam guddi gi lu mu lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm fajar dina xar kenn mënul te fajar xar donc loolu day wane doole bi peuple am peuple la nit mëntu jaamaarloog gis nga même firawna même na li mu teg bannu Israël yëpp suñu borom def na ñoo ñàkk fayda rek bu ñu amoon fayda firawna du nekk dictateur waaw comme ñoo doye di lu lu ci alxuraan kañ résistance la al alxuraan gis nga diine l'islam mooy diine résistance diine l'islam diine ji résistance la waaw Mouhamed Iqbal daf ko doon wax daf na premier premier lettre ci lislaam mooy non waaw mooy premier lettre moom ngay duggee ci l'islam waaw non da ngay dàq lépp bañ résister looluy l'islam mais dina joo xam lu ñu la teg nga nangu naan yàllaa ko fi teg ak yàlla kum fi tegul kan la fi yàlla tegul comprendre nga mm-hmm. donc loolu lu jar a bàyyi xel la mm-hmm. Euh, peuple su décidé yàlla day décidé. Mhm. jullit dafay résister. Mhm. nit nit ku normal day résister. bañ nooteel waaw suñu borom nee na Firawna li mu leen teg yéen a ko nangu parce que gis nga dictateur. Mhm. tabax la rek bu la teg bu la tegee kilo nga nangu. mu tegaat la ñaari kilo mu tegaat la ñaari kilo ba keroog ba muy dem ne la ana en a'la léegi man maay sa yàlla. du xëy benn bés rek tegle la benn yoon étape par étape. suñu borom ne fastaxafa qawmahu fa ataahu dafa leen ñàkkal fayda doyadal leen xeeb leen mépriser leen nawloowu leen ñu nangu ko moo tax Firawna nekk dictateur bi bi gën a rëy ci àddina bi foo gis nit di def dictateur bu fekkoon résistance ba ca war am na du diire ñetti fan mais nag peuple day nelaw mais bés day ñëw dafay yeew est-ce que tamit ni ñu ko waxee ni léegi dictateur yu tabax la day teg di teg di teg yegg leen foo xamante ne dootu doon dootuñ di mën si dara waaw léegi parfois loolu am day am mu yegg leen foo xamante ne da lenn ñi askan mënatuñ dara ci moom waaw mais xam nga damay wax ne ci bokk na ci li ñu war a sante Ousmane Sonko Sénégal ku mel ni Ousmane Sonko su feeñul woon jamono jii mu feeñ Sénégal doon na jëm ci avenir bu lëndam parce que moowu résistance ñu bëri ci sénégalais ñu ngi ko xamee ci Sonko mhm. li ma droit may yoon may ma ko mooy damay résister bu ñu may jaay doole damay résister tey foo tourné ñu naan résistance. Mm-hmm. résistance boo baat la boo xam ne Sénégal yi xam nañ ko léegi te xam nañ na lu normal la moo tax xëy na lu baree bëri fi ñu waroon yegg yegg ñu fa. Mm-hmm. donc man Moustapha euh, candidature Ousmane Sonko man dama jàpp ne yàlla noppi na. Mm-hmm. Ousmane Sonko yàlla fal na ko ci xol yi ba pare mooy président wu xol yi. Oh. ni ko Seydina Aliou waxee loolu mooy dëgg. tey di jéem a gàllankoor dangay ngay dil sa bopp maanaam dangay ñàkkal sa bopp fayda tey juge bu condamné Ousmane Sonko is ci poubelle de l'histoire nga jëm ku ko jox dëgg yàlla yëkkati la mais parce que xam nga dëgg lu ne faa nga kenn du ko kenn du ko jeex tey ni mu amee ndam maanaam defe naa ñaari nit duñ ci werante boo xoolee ci diine day am ndam nga xool ci droit day am ndam nga xool ci xel mu rafet day am ndam nga xool ci ngor day am ndam foo xool rek moom Ousmane Sonko dama ne mooy nit ki ñu gën a sonal waaye mooy ki ëpp ndam ci Sénégal. Mm-hmm. victoire yi mu am. xeetu victoire yi ñoo bari te wuute. Mm-hmm. mais fépp fu mu demee. mais Imaam mën a jàngatee si candidature bi boo gisee coono yi ko toppee yëpp. Mm-hmm. man dama naan parfois est-ce que du servir de leçon nit warul bàyyi. ak lépp lu mën a tukkee ci conseil constitutionnel parce que lii keneen ku mu doonoon après ba la DG gàntalee nga def sa point de presse wax daal ne voilà maa ngi nii aw ma daal dem toog sa kër mais dem foofu ñu bañal ko mu demal fële ayib di jàpp te bàyyi boobu noonu aussi. également xam nga mm-hmm. fan yii la dama wax ne Ousmane Sonko natt yonent la yor. Mm-hmm. benn ilimaan bu baax koo xam ne dafa fiir ci wàllu pas-pas ne est li nga wax ëppul natt yonent la yor. parce que natt yonent. Mm-hmm. boo jaaree yoon yi yonent yi jaaroon. xeer ya daloon ci seen kaw dina la fakastal loolu kese la yow nan ngay xoole ma ne Ousmane jarul soril jàngal histoire yontu yàlla Yuusuf waaw dégg yontu yàlla Moussa def nañ ko ko mu nekk banu Israël di waaraate ci digg pénc mi ne ñëpp dégg ko benn jigéen ñëw ak biiram ne ko yaama biiral fekk boobu na homme d'affaires bi gën a rëy xam nga dictateur yëpp dañuy ànd ak ay om d'affaires mhm. mooy tey yi ngay dégg ñu naan candidat milliardaires yeeg yooyu mhm. Mhm. dafa mos di am ci ci histoire alxuraan nettali ñu ko na monté jigéen fay ko ci biir mbooloo mi mu ñëw ne yontu yàlla Moussa yaa ngi waaraat te yaama biiral xam nga loolu ku ko mos waaw léegi moo tax bu ñu naan usmaan li ma ne leen dafa jaar rek ci yoonu yonent yi loolu dong nga tax li daloon ñële dañ koy dal yàlla nee na ca cëppaa ndaw ga wala takunu ka lazina aadaw Muusa fa barra'ahu llahu mimma qaalu wa kaana inda nga bu leen mel ni gars yi loroon Muusa di ko mm. tuumaal njaalo di ko tuumaal viol waaw fa barra'ahu llahu mimma qaalu yàlla setal ko balaa ñuy wax Yusuf mu xam nga ñun Youssouf rek la ñuy wax mais Moussa kaa moo gën a garaaw parce que Moussa xaaru na moo monté pièce bi yëpp mais suñu kaay yi dafa mooy tax yàlla rek a xam nit moo tax ñun boo gisee problème mu Sonko leer ci suñu bopp lu ñu lu fu ñu toll rek dañuy gis alxuraan wax nañu ko comprendre nga léegi mu ngi noonu léegi yontu yàlla Youssouf wax naa ko fi Moustapha waxaat ko benn sëriñ sax nee na ma ah yow de alxuraan ji léegi ni ni nga koy piree prime politique la ma ne ko ma ne ko alxuraan li ci ëpp politique la <laughs> dégg nga li ci ëpp politique la ma ne ko atte yontu yàlla kii yontu yàlla Yuusuf keroog bi ñu xamee ne li ko Zalixa tuumaal dara du ci dëgg mais ki ki yor xaalis bi ba ministre bi mais daf na ko dëgg la yow yaa nekk ci dëgg mhm. yoon setal na ko wa shahida shahidun min ahliha ba yëf yi leeree ñu xam ne ndaw si li mu wax dara du ci dëgg li Youssouf wax muy dëgg ndaw see ko doon sàkku dañ na ko dëgg la Youssouf yaa am dëgg waaye du la tey dem kaso. waaw mhm. ah, loolu de mooy jaay doole dëgg mhm. loolu mooy li la Adji Sarr tuumaal. Mhm. ko doon violer amul. menace de bi amul. waaye corruption la jeunesse. seetlu nga ko. nga affaire bi. du tee nañ la condamné. waaw amul waaye nag du tee nañ la condamné. amul waaye du tee ne dinañ la condamné Youssouf looloo ko yóbbu kaso. looloo yóbbu te ñi ko yóbbu xam nañ ne liñ koy tuumaal amul. waaw ñoom ñu alxuraan moo ko nettali. waaw alxuraan moo ko nettali ne bi yëfi yi leeree. naññi ne ne ne ne ne ne Youssouf liñ ko waxal dara amu ci. Mhm. waaye dina dem kaso. Mhm. maanaam tëj bi teguñu ko fenn. waaw mais fekk boobu yàlla nag dafa nekk ci programme am. Mhm. parce que bu demul woon kaso. am na loo xam ne boo dundul kaso doo ko xam. fekk mission bi. am na loo xam ne fi tolluwaayu yàqute toll ak fi jamono toll ci kaso nga koy xam ne mm-hmm. moo tax damay wax ne bi ñu jàppee ñoom Cheikh Baara ñoom Baara Ndiaye dama ne affaire bi métti na mais missionnaire lañu mm-hmm. dégg nga ñii ñu jàpp ñëpp yóbbu ci kaso bi dañuy dafa am lu ñuy jàng ci kaso bi dafa am lu leen yàlla nar di liggéeyloo ëllëg mm-hmm. dégg nga xam nga ne ba ba ba ilaa yow mi diini benn beneen nitay tooñ nit dugal ko ci kaso mais du doon Ousmane Sonko waaw parce que bu dundul woon kaso théorie bi rek doyul. Mhm. parce que loolu la wax dañ naan ki fi nekk dundul kaso. moo moo waral yu bëri yu bëri yu bëri. Euh, mu umpule ko. Euh, xam xam xamoo ko ci biir kaso. maintenant damay damay damay dellu si si Badara euh, cette fois ci gis nga coow li boo tuddee candidature